embauché leen ñi liggéey ci mbirum courant mooy waa sare léegi mu ne ne xale yi dafay marche bi ñoom ñëpp ay dajale population bi tey am di jox fi nga xamante ne mooy wuti li nga xam ne mooy RTS nee bokk internet Dakar midi ak mbokk internet Wassare TV ñu aman ci mbégte ak kontaan tey ànd ak yéen nee na gaan dem xool tey seen li ñuy jànkanteel ak seen i naqar mooy li nga xamante ne bëgg ko woon li nga ñoom ñooy xale yi nga xamante ne ñooy électricien yi di liggéey si mbirum courant embassement la xale yi bëgg ba ba léegi ñu ngi koy wax da ngeen jëf da si def li nga xamante ne mooy marche bi nga xam da ngeen koy def démb ngeen jàpp ko ngeen def ko tey anti-pacifisme pour di wax li nga xam mooy leen naqari lan moo leen métti li ñu métti mooy dañuy dénoncé li nga xamante ne ni moo am si Senelec ñun mënuñu fee nekk pendant des 15 ans pendant 10 ans ay nit la ñuy jëli ñu leen di embauché mu nawee bëgg yàgg nañ si boîte bi xam nañ liggéey bi kon nañ ñu dox suñu moom moo gën ñuy jëli ñi ne seen i mbokk yi ak seen doom yi ak seen jarbaar di leen jël di leen dugal suñu place te ñun yàgg nañ fi xam nañ liggéey bi mën nañ liggéey bëgg nañ liggéey bi comme nañ ñu jox bi ñu liggéey ko moo ko ñuy ñëw seen doom yi ak seen nii la ñuy déploré loolu kese la ñuy déploré ñun li ñu bëgg mooy nañu fànn doom bi tey embauché sans production loolu lañ bëgg voilà dëgg la yow tur bi lan la Pape Sylla nekk tudd maa ngi nekk agence Thiaroye jërëjëf Pape Sylla Pape Sylla mënul wax noonu léegi léegi moom am solo léegi léegi maa la tribunal la. Timothée Collé Timothée Collé maay coordonnateur national de l'amicale des travailleurs de l'électricité. dëgg la waaw tey gis ngeen def nga xamante ne mooy marche bi ngeen waxoon démb amal ngeen ko nii bi tey di pour ngeen ñu embauché leen tey jiitu réew mi muy créé li nga xamante ne mooy emploi tey seen gis-gis loolu te ak ba léegi yéen embauché wu ñu leen yéen. mun naa ne bi ku ci gën a néewle at. 5 ans la totalisé Sénélec am xam-xam Pamba Demba bi tey saa demee Europe li koy doxal moo nekk ñii tey jii li nga xamante ni moom la ñu waxante woon def nañ ko ñëwaat rek pour woon sénégalais yi ne ñun amicale des travailleurs de l'électricité ñun prestataire Sénégal yi kontaan nañu ci ki nga xamante ni mooy Pape Mademba Bitèye ndax bëggatuñu gis Pape Mademba Bitèye mu ñuy dicté du ko def bëggatuñu gis Pape Mademba Bitèye occasion am bu taxawee muy jël ay jegeñaaleem di jël ay raxam di jël ay magam loolu lañ bëgg mu jeex fii te tey jii li waral ñu ñëw dajaloo fii dañoo bëgg wax ak Macky Sall moom ci moom moom nga xamante moo far moo far euh, Pape Mademba Bitèye la ñuy ko nee nañ la ñu balaa weer fee dee te incha allah jaral na ñu lu nekk jëla ci dem ba jeex tàkk ndax bu ñu gis koo xamante ni daf ñuy utiliser comme des esclaves bu ñu gis koo xamante ni day dafa ñu bëgg bi ak ñi nga xamante ne tey mooy ñu ne si nguur gi dañuy jàppale xale yi embauché leen xam Sénégal suñu réew la réewum de la teranga la boo xoolee xale yaa ngi nii marché marché bi di leen ma xale yi mais ci biir marché bi gis nañ ñaaw na may kilifa ak caat ñun ñëpp ñu si marché bi mooy waa mouvement Y'en a marre yi ñoom ma nii kilifa ngoom ak caat waa mouvement Y'en a marre ñëpp a ngi nii ñu leen di ñaan ngeen xew yàlla ci li ngeen di def ak waa des jeunes lañu wax voilà la jeunesse voilà les jeunes kon ñun am na Ambos am mbosement la ñu bëgg balaa weer wee dee mais li ma jaaxal mooy ñun suñu état bi ñu ngi créer li nga xamante ne mooy emploi des jeunes am ñoo xamante ne am na suñu la ñu ngi fay ko seeni salaire waaw man loolu nekk na loo xamante tamit injustice la waaw yow balaa ngaa defar li yàqu ba pare defaral loolu ba pare balaa ngaa yëkkati leneen loolu injustice bi ngeen di gis nii mooy waa Sénégal toutes les lañu bëgg ci ni mu gën a gaawee ni mu gën a gaawee nañ ko gëlee toile bi ne euh, liñ ko waxee woon démb démb suñu de président waxoon nañ ne tey jii di leen tase place de la nation waxtaan ak ñii nga xamante ni ñooy sénégalais yi wax leen li nga xamante ni moom la ñuy dund ci biir Senelec bi mu nekk dundin bu métti tey fii nii ñu fi teew tey ay kilifa lañ nekk ay père de famille ay mère de famille ay soutien de famille tey jii nag ñaanuñu mais ni ko gars yi waxee rek suñu àq ak suñu yëlëf la tey jii def nañ marche waaye nag duñ fi yem président de la république man laa adressé directement wax duñ sa ak Pape Demba Bitèye président de la république mooy le président de tous les sénégalais. moom la ñuy waxal xamal ko ni ko suñu mbir ci sottiwul dans deux semaines man joxuma un mois dans deux semaines nañ ñu xaar ci direction générale Senelec dinañ fa def benn sitting bu ñu fa jógee dinañ passer à la vitesse supérieure dinañ xiifal te kenn mënuñoo tere li nga xamante ni mooy bañ tax rek mu bañ a xiifal mooy ñu jox ñu suñu embauchement loolu kese laa bëggoon wax di jox gars yi rendez-vous yéen ñëpp ci kanam tuuti fële ca direction générale de la Senelec. waaw salaamaaleykum Sénégal. Macky Sall un de cohérence Macky Sall un peu de cohérence munoo wax da ngay jox ndaw yi liggéey am 500 jeunes prestataires munoo fexe ba jël leen lu ñuy woowee embauche Macky Sall un de cohérence politique dafay cohérente respecter les Sénégalais embaucher 500 Sénégalais yi taxaw ci dëkk bi weeru koor ku fi naan ndox mu sedd ñii ñoo tax. bu tàngee ku fi taal sa ventilateur wala clim ñii ñoo tax te ñoom ci ay poto courant di leen masse ñuy dee ñooy dagg ay fil courant di leen masse ñuy dee ñooy dugg ci ay nawet ci ay pax courant di leen masse ñuy dee nga leen di kàllkàllee bi tey di jël ay jarbaat ay rakk ay kenn xamul ñu amul benn jàng ñu amul benn xam-xam politique kese dañ soo embauché wul 500 jeunes yii. balaa weer bee dee on passe à la vitesse supérieure loo ci bayi bayi ñu ko ci engagement la ñu bëgg engagement la ñu bëgg balaa weer bee dee engagement la ñu bëgg balaa weer bee dee jaajëf gaay wasalaam ta damay da ngeen may baal tuuti ngeen may ma ma wax ci tukulóor parce man Macky Sall waxal directement parce que moom kanko Macky Sall en cas bi mbimi e mbimami min kami ɓinngel ma kami baade kami miñe kami mawne waddiraaɓe ma waɗiraaɓe ma miñe ɓiɓɓe ma e baaɗiraaɓe ma tan woni ɗo gila ɓe ngoni e sénélec ɓe mbaɗi yen ɓe duuɓi sappo ɓe duuɓi sappo e joyi ɓe duuɓi nogas ɓe duuɓi caɓantati hay gooto e maɓe waɗaka hen embauche jooɗo hitaande ɓe jomnotaako ko haalis o gonɗo e sénélec hannde eɓe wiya sénélec ne dañi bénéfice a faami ko kamɓe jeyi ɗum kamɓe liggoto ɗum kamɓe liggoto ɗum goɗɗo ligganaki ɓe ɗum kamɓe tan liggoto ngeen mbalma nak ma ɗoɗo wax olof ko fof ma wax pulaar bi léegi wolof bi mooy dama ne Macky Sall ñun doom lañ say jarbaat lañ say rakk lañ say xarit lañ lenn neqariwuñu lu dul ngeen di jël seen doom di leen jox embauche bi te fekk ñun ñu nekk fii bénéfice bi xaalis Senelec di wàññi chaque année ñun ñoo ko liggéey ñoo nekk ci réseau yi ñoo nekk ci branchement bi ñoo nekk ci facture yi ñoo nekk ci coupure yi xaalis bu dugg Senelec ñun ñoo ko def keneen defu ko dégg ngir yàlla duñ la ñaan li ñu moom la ñu soxla jox ñu li ñu yellof mooy suñu embossement ay jigéen a ngi fi ah du man kese damaa nekk ci kaw waaye ay jigéen kese na ngi fi ay góor a ngi fi ñu yori kër ñu yor ñaari jabar da ngeen a xam ku toog ñaari weer wala ab fayee nooy téye sa njaboot ngir yàlla gën a tibbi Macky Sall jàppaleel jàppale jeunesse si jàppale prestataires yi pareeguñu nag dañuy door lii rek dañ lay doog a wax juddooguñu nag. waaw nee naa la asalaamaaleykum mbokku internet yu Dakar midi ak mbokku internet yu Wassare ñu amati mbégte ak kontaante gis nga li xamante ne xale yi génn nañ def ko li nga xamante ne mooy si mbedd mi. wax nañ li nga xamante ne mooy seen bëgg-bëgg mooy ndaw bu sale léegi bëgg ñoom wax nañ ko fu ne di ñaan yàlla di ñaan président tamit di leen sàkku ndimbal dañ leen embauché parce que ay père de famille ñu ngi ci ay jigéen ñu ngi ci ñu nekk ñu ngi ci président mu ngi créé emploi des jeunes deux mille cinq cent personnes boo xamante ñu ngi si terrain bi xale yoo xam ne embauché suñu yoon amuñu liggéey bëgg nañ li nga xamante mooy état bi ñu jàppale gone yi embauché leen mooy xale yooyu nga xamante ne tey mooy ñi xamante ne tey mooy bi ñu def entretien ki nga xam ne bu yaanaamar ak kilifa wax nañ li nga xamante moo leen naqari di ñaan si réew mi ak salaam yàlla nañ leen embauché si jàmm nañ leen embauché balaa weer dee yàlla nañ leen embauché kon boobu yàlla nañ leen embauché balaa weer dee Sénégal métti na président il faut nga bàyyi xel li nga xamante mooy jeunesse bi nga bàyyi xel mooy ndaw ñi jërë ngeen jëf amante ñu mbégte ak kontaan ñu ngeen ñu ànd Midi ñaan saa su ne ànd ki nga xamante ne mooy waa Wassare TV jën liggéey rafet na kaar macha allah jërë ngeen jëf bokk yi yaa ngeen jëf